wane na ne yéen ngeen ba pare incha allah le 24 février 2019 bu ñu premier tour rek wa Cap Skirring choisir le changement fii nag jekk na jaadu ñu wax fi vraiment li nga xamni mom lañu wara def ci gëm suñu qui ci fonk suñu aada fonk suñu culture développer suñu tourisme wax nañu ma li fi xew Nous ci ay nous nañu mauvaise politique touristique bu gouvernement bi moo waral yàgg nañu leen a dig ay assainissement ak yeneen xeetu projet te defuñu ci dara loolu nag moo jur ci biir Sénégal yëpp ñëpp fat ci seen xol ne changement jot na sëkk sëkk sëkk incha allah le 24 février loolu dinañu ci ñu leen di gërëm turu délégation bi ñu àndal yëpp soxna am sa Sow Sidibé mu ngi nii taxaw ci suñu wet di seen doom bokk ak yéen donc ñooñu ñooñu ñëpp ak kilifa yi nekk ci coalition bi yëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur di leen remercier di leen bi tàng na metti na mais terewul ngeen génn kontaan naa ci seen taxawaay wane na ne yéen tànn ngeen ba pare incha allah le 24 février 2019 bu ñu demee premier tour rek waa Cap choisir le changement. fii nag jekk na jaadu vraiment li nga xam ni la ñu war a def ci gëm suñu bopp.

di seen doom bokk ak yéen donc ñooñu ñooñu ñëpp ak kilifa yi nekk ci coalition bi yëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur di leen remercier di leen sant naaj bi tàng na metti na mais terewul ngeen génn kontaan naa ci seen taxawaay